gars yi rek ah, ñi nga xam ne ñoo ñuy la jamono ji di ñu bàyyi xel ñoom dañ ci def seen ah, seen jàngat Xaadim eh, Mbay ni ma ko waxee ne ne fii politique amu fi Diomaye mooy Sonko Diomaye mooy candidat bi donc loolu leer na Xaadim Mbay moom il a tranché Ibrahima Ba itam moom tranché na ah, euh, Malick Ali ne ma nen na ko nee ni nga ko waxee noonu la <laughs> Ibrahima Ba muñal yàlla rek baax na merci Pape Ibrahima <laughs> da caa baax ah da caa baax vraiment waxtaan wi day eh, weccante xalaat bi am na ci solo trop xaar kenn ci 77 810 90 90 mbokk mi na ngeen def. sant sëñ bi waaye ay jàmm. saa Touba naka journée bi. ñu ngi sant de. yow xanaa da dem Espagne. mu ne. ndax da ngaa dem Espagne. bala maa dem fen dañuy lijjanti dañuy lijjanti dëkk bi ba. yow waaye eh, xam naa ni xam naa ni doo maye dara yow. dëkk bi kay danañ ko lijjanti. <laughs> Eh, waaw nan nga jàpp ne noonu lañ ko war a lijjantee Sonko ak ñaar ak ñetti candidat mi kan la ci war a jël euh, gars yi nag ñoo ngi naan dafa war a buux joomaay ñii naan euh, Habib Sy expérience politique am euh, Sonko war na cee mën a sukkandiku wala Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane Dièye mi nga xam ne jege ñaaleem la bu yàgg diggante loolu nag yow lan nga jàpp ne moo war a nekk. waaw nga ñun de la ñuy dégg. Mhm. waaye kenn ku ci nekk la ne sa la ko laajoon. am nga mhm. looy wax. Mhm. ca eh, maanaam jaasi na deesu ko jiitu ci mbar. Mhm. Ousmane Sonko combat bi mu doon mane daf koo gañe. Mhm. Macky Sall mooy perta bi. Mhm. li tax ma tudd loolu bu ma waxee ba daaneel kuy nit tey dégg di nga xam ne ma wax lu wér la. Ousmane Sonko dafa ñëw fekk fi benn façon système politique bu salte bu doy waar. boo xam ne kuy costume di war oto bu tooy nit ñi sax ñu am complexe mën a wax ak Ousmane Sonko fexe ba xamal Sénégalais yi ne leen suñu dëkk bi manqué wul dara lépp ngi ci lekk waaye dañoo am problème lu njëg lu baax. Mhm. yee ci Sénégalais yi ba Sénégalais yi yeew. Mhm. ba pare nag maanaam Ousmane daal rek gars yi ne la mu leen pëkk pëkk pëkk ba jóg ba yeewu ba toog ba sëlbu ba pare. Mhm. Macky doog a ñëw ne ko nag léegi waroo yee gone yi fekk yee na gone yi ba noppi. la la la la ca nekk mooy foo foo génn ñu naan Sonko. Macky nag la tax mën a daa perte. mooy Macky Sall boo ko fekkoon ne ko Macky génnal doxatu Ndakaaru mu bañ. Mhm. Macky fi ne nee nañ mooy borom réew mi waaye wóor na sëñ Fallou Mbacké Macky Sall buy génn pale di doxantu bu génn bu ñëwee ba génn te ko naqari. Mhm. dana ma jaaxal fu mu génn ñu koy tuddal Ousmane Sonko Ousmane Sonko te tasa ba waaye mu ëpp Macky jàmm ay yoon yoon ma koy wax. Mhm. élection yi nag man tàmbali naa sensibiliser ndaw ñi. dimanche doon joxe yëf yi wala samedi. samedi lañ ko doon joxe samedi si guddi samedi si guddi. waa dimanche ci heure bii. Mhm. diggante ay ñoom ndeng leer rek ay ñoom dëkk dëkkaan yooyu bu ma ci xam jaar naa fa sensibiliser ndaw ñu ne leen dem leen gën jël seen carte yi. Mhm. yow moom mooy Diomaye Faye dénk leen ko réew kon yow kon kon nga ko def. dama ne. waaw Diomaye ñaata at muy liggéeyal Sénégal. man mi dem këram bërki dem ba toog ak yaaya bu waxtaan. Mhm. kër Joomaay Fay gisuma fa bâtiment bu jeex euh, maanaam maanaam maanaam fukki million ak juróom gisuma ko fa. Mhm. ci koo xamante ne ni maanaam mu ngi liggéey ci réew mi même bu fekkee nekkut fa nga xam ne man naa jote ca xaalis ba waaye bëri na lu mu fay xam loo xam ne ku sàccoon cinquante millions. Mhm. mën a la mën a la mosal ma wala ma boole la di nga ko mosal. kër Joomaay Fay gisuma fa oto buñ gaare ñu ne avant Joomaay di dem da koo gaare fii ay saret laa fa gis. ak ay maire yaayam dama ko fekk muy xooli gerte. Mhm. la gën a métti ay bokki joomaay fay mooy défiant bi taxawoon assemblée nationale. Mhm. di wax joomaay fay naan ko ab ab salafiste la ay bokkam de nee nañ ma. Mhm. Euh, ab jigéenam nee na ma li leen gën a métti bokk na ci. ñuy tuumaal joomaay fay ci koo xam ne xamul lu dul diine. yaayam jëkku sukku jur xamal ma ne duñ jóg tiwaawoon. moog baayam baayam tudde na magam. maanaam maam Abdou Aziz Dabakh. Mhm. am koo xam ne sëñ Mansour si la ko tuddee. Mhm. léegi kat teew fi assemblée nationale lekk fondé di rëyalul taat di accusé doomi jàmbur ji di ko di ko di ko di ko wax lool lool métti na ma trop. <laughs> d'accord léegi bu ñu bu ñu bu ñu saa bu ñu sori ci débat bi nañu wax ci euh, ci euh, Diomaye mi nga jàpp ne yow Ousmane Sonko moom la tànn te moom lay moom lay moom lay moom lay kii moom lay soutenir parce que jafe-jafe bi nekkoon na xëy na euh, li mu sekk ak ñeneen ñi parce que Cheikh Tidiane Dièye quand même ko xam-xam ak Ousmane Sonko ñoo bokk si Ziguinchor ga ñu dëkk xaritam la moom Ousmane <coughs> Sonko wax na ko te daanaka sax Cheikh Tidiane Dièye ni mu nekkee président conseil départemental bu Ziguinchor mën nañu wax ne lu la jaar Habib Sy nga xam ne xaritam la papam la ñoom ñaar ñoo bokk dëkk ndax ay dëkkandoo lañ ak ak Diomaye mi nga tudd léegi ne tànneef li moom daanaka ci moom la féetewoo ba pare yow su nekkee loolu nga jàpp ndax jàpp nga ne Ousmane Sonko loolu lay daal di def. xam nga man sama xel mu gàtt Ousmane Sonko xamoon na ne. ah wala boog ci li ma yaakaar man boog sama waxi bopp. Mhm. jàpp naa ne bu noonu Habib Sy demal uti parrainage. Mhm. maanaam engouement bi man naa bañ a demee nii. waaw. waaye nit ñi dañoo yàgg xam diggante Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko bañ ñu ne Diomaye Sonko Sonko mooy li ëpp ci yi di liir kanamu Diomaye fay xam ne même plateau télé yi gisaguma benn yoon ñu ne Diomaye Faye moo dépassé kenn man bañ ko jàpp yóbbu kaso nee naa ñu ne ñëpp waaj. Mhm. ku yoroon ni Diomaye Faye maanaam maanaam respecté nit ni fay Faye yeewuwut Sénégal ci politique sénégalais yi gisuma ko fi. Mhm. am na sax émission bu ma waxoon na leen Sonko la yàlla dogal ci politique moom laa bëgg. Mhm. waaye maanaam exemple tey li ci joomaay fay ci ak dal. maanaam mën naa bañ a nekk ci Ousmane Sonko fi ma ko doon mhm. teg nekkul ne Sonko mhm. mais Sonko fi ñuy dafa àgg ci maanaam buñ ko doon makkee nga nee waaxul nga dem ci moom waaye am na loola mën a gàllankoor ci seen diggante nee na kon danaan lu mhm. dana ma gàllankoor waaye dina àgg ci moom. bu dee Diomaye nag mën naa def yeneen pexe yoo xamante ni maanaam euh, mën naa euh, bañ a jaar ci tànki Ousmane Sonko jaar. tekki wut nag ne kii maanaam day def lu mu def wala kee dafa ragal a def li kii di def. xam nga Ousmane Sonko dëggu gi ëpp dëggu gi dafa ëpp dëggu gi moo ëpp. d'accord joomaay dëggu na dëggantaan. Mhm. mais pour mu xeex ak Macky Sall Ousmane Sonko xeex ak Macky Sall moo gën a yomb parce que Macky Sall xamul incha allah macha allah Macky Sall mooy genre yoo xam ne dañ lay mbecc loxo bi jàpp ni dañ lay mbecc lexu càmmañ bi. Ah, déedéet nga naan ko boo fa nee naan ko li def nag day métti da nga ko koy delloo. Mhm. Ousmane Sonko nag loolu la ma ne ak Macky Sall mooy loo maanaam terme gat sa gat sa. loolu tax Ousmane andil ko bu doon Diomaye la mën na ko bañ a andil gàtsa gàtsa googu mën naa doxee beneen stratégie boo xam ne bokkul bii. d'accord te booba du arrangé mag maanaam bi Ousmane Sonko di xeex ak Macky Sall moo gën ndax Ousmane Sonko dem na ba yee Sénégalais yépp Diomaye Faye yéen laay waxal yéen Sénégalais yi. ah ñun de ñu ngi ko taxawal taxawal taxawal. waaw bu fi campagne de na leer. ah day leer dañuy signé contrat ak yow amul campagne. waaw léegi luy campagne luy campagne. xam naa la nga nar a def bul campagne rek fa laa yem. <laughs> ah instant bi ñoom dañuy tere campagne. dañuy tere campagne. <laughs> man de bokkuma ci benn parti man. <laughs> man. man. waaw du ma politicien. Mhm. man sama jëm bopp damaa gëm ne. Mhm. crédit yi ñuy jël di ko wootee. effectivement connexion yi ñu am suñ kër yi di ko di ko connecté. Mhm. li ñuy xeex ci réew mi bu ñu ko amee. di nga dox ci mbedd mi di connecté naan waa man wifi bi may connecté fu mu nekk. waaw. man loo man loolu laay xeex di nga di di nga di nga dem ba dugg ci boutique. Mm-hmm. yor cinquante mille jël loo xam ne ci taxi nga koy teg. Mm-hmm. fi ne Sénégal boutique boo fi dugg boo yoree trois cent mille la ngay jënd maanaam man ko wote ci saratu mbaa wala ab ab pousse mm-hmm. la war a loolu mooy marchandise mu cher ak ñàkk a tege ci yoon. loolu laay xeex waaye man xeexu ma nag bu dee campagne dong. man moom sensibiliser ndaw yi jëm nañ dem nañ jël seen carte dañ koy tere. waaw dañ koy tere instant bi ah, loolu boo xam ne sas nañ ma ko chaque jour naa ko fi wax. man naa koy def man bi Eh. dugg naa ci ay ndengleer. damaa mm-hmm. jóge naa Touba. Mm-hmm. jaar mbay mm-hmm. dem Xombal. ah non dem dem dem fii dem Kaba jóge Kaba dem ndengleer jóge ndengleer dem ay diggante ñoom puufu nag ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom nag. ay ñoom eh, dëkk ba nu tudd ca avant ngay àgg njege ñaaw ca wetu kër Joomaay Fay eh. ay ay ay kër Kumba. dëkk dëkkaan yooyu yëpp dem naa fa yor sama carte tak tak ko ni ñuy def ab maxtum mhm. ne dem leen ngeen jël seen carte yi noonu laa ko toppoo ba njagañaaw mhm. toppaat ko tournawaat arrêt Jakarta bu ma romb Mhm. ne leen wàcc leen jekkataay ngeen dem jël seen seen carte yi mhm. Macky Sall ay carte ko fiy jëlee sensibilisation bu am solo ñoo jël man damay campagne foofu force dinaa wax gone ñu jël seen carte yi <laughs> loolu moom sensibilisation la c'est ce que l'on appelle une sensibilisation quand même citoyenne parce que képp ko xamante ne vraiment tollu nga ci moo xam parce que li ngay wax nii sax xëy na gouvernement moo ci waroon def ay communication suñu eggee ci période électorale yi ni mel ñu sensibiliser quand même ñi nga xam ne mooy population bi ñi ngi ñi nga xamante ne bindu nañ ci liste ñu dem jëli seen i carte parce que du fal ak ak ak folli wala jëlee fi Macky Sall wala teg fi keneen mais quand même c'est un devoir citoyen que képp koo xamante ne bindu nga ci euh, list électorale yi nga mën ko def nga war ko dem defi donc dafa bokk ci ñi nga xam ne day tabax ëllëgu Sénégal donc nga am sa carte bañ a exercer droit civique c'était comme si que yow amoo baat ci réew mi donc il bon aussi de sensibiliser képp koo xam ne Sénégalais amul opposition amul pouvoir ah affaire affaire maanaam maanaam Sa Touba mbir mi du affaire far mais aussi dañu am baax ñu sensibiliser ñi nga xam ne ñooy citoyen képp koo xamante ni bindu nga ci liste yi nga dem jëli sa carte te bésu ñaar fukki fan ak juróom yow yaay xool ci sa akulaay taala ki nga xam ne jàpp ne mën na yor réew mi nga jël sa carte sànnil ko ko nag ñun nag faru faruñu fenn amuñ fii lañ far amuñ fenn lañ far mais il est bon aussi ñuy sensibiliser sénégalais yi ngir yàlla war a suli bésub jotee ñu dem vote ji ndax voter c'est un devoir civique il faut qu'on euh, qu'on accomplisse nos devoirs civiques waaw kay léegi. Mhm. dafa am loo xam ne danaa ko jébaane fii. ci demoon mhm. Ndengaleer xamu kum doon. Ah. dem naa Ndengaleer benn magum juróom benn fukki at jëm kaw. Ah. nee na ma dafa am ñu fi ñëw. Mhm. jël seen carte d'identité photo ko copier jël seen ñaar téeméer bàyyi leen fa comme ça rek carte membre yooyu. ah maire ba na moo koy waxee sax moo daw yaram nee na. Ah. ñoom de danoo ñëw fi jël saaw ñaar ñaar téeméer lay xool ñaar. 1000 francs la naan ñaar. nee na nag ba pare naan ñoo da ngeen waaye maire ba nee Hmm. du ma wote ji te waa waa mbootaay gépp nee naa leen bu kenn wote ji suñ ñaar téeméeri ñu yóbbu xam nga dañuy wax détournement des deniers publics ak hmm. def loolu détournement de pauvre la def ab defee a dëgg moo sàcc xaalisu maire yi nekk ndegg leer hmm. ab maire ma ko wax nee na du wote ji nee naa ko nag yaay booy yow yaa ngi gën a dugal sa bopp ci pax